mel ni kon Sénégal ni ngeen ko xamee rek defe naa ne kii moo ñàkk way juram di Sa Thiès di rakk ci Balla Gaye numéro 2 dañ lay jaale góor gi di ñaan yàlla yërëm ko xare ko aljana Salif euh, euh, maanaam mbir mi am metti na mais yëg-yëg bi lan la actuellement. waaw dañuy sant yàlla rek euh, di julliwaat si bi sant suñu ñaari waajur ndax ku nga xam ne dee du jaas. ñàkk ko it waaye lépp rek dañ koy delloo yàlla suñu borom sant daal moom moo ñu war rek ak ñaanal ko tamit ndax loolu lañ ko desat yar nañu fa ñu war a yare jur nañ fa ñu war a jure lépp loo xamante ne as julit war na ko sax def na ko ci ñun waaw desalatuñ dara ñun rek ñoo ko desat waaw yow dafa mel ni tamit ku amoon maanaam seen rapprochement dafa jegeñu toor donte sa wayjur la mais daa mel ni bokkoon nga tamit ci ay doom yoo xam ne yu ko jegeñoon lañu loolu loo ci mën a wax. waaw xam nga loolu ñaar koy andi am na lu ma ko def ba ba mu àgg ba mu àgg ci xolam waxatuma la mu génnee ko wax ko ci laa laaminu boppam mais man ab maam la sa fa dañ ñaan sax yow kii sa maam la ma ne waaw soo dee sama maam la sax man ko sañ fekk di bëri moom di kaf ak di ko def loo xamante ni maam ak sër rek laa koy xoolee mais lépp rek ba ma koy def dama koy def ngir mi soulager parce que mag tey euh, stress da ko yomb waaw dama ko bëggoon di def mi am jàmm xol bi di féex parce que loolu laa sikkoon ak moom wala moom combat mënuma lii la ngay def ma jàpp ko dem xam nga sonoon ko trop franchement parler yenn saa dama koy sono ba mu woo woowaa koñ bi ba mel ni sax dara dafa xew fekk dara xewul maa moom la ñoo ko sekk ñoo ko dund xëy na peut-être loolu moo ma nar a manqué ci moom mais li ci des moom nan na dëgg yàlla maa ngi bàyyi lépp ci loxo yàlla daal. mas naa dégg sax benn moment nga di ko wax mel koy sëwee naan ko ko di ko tooñ noonu naa ko wax bu ñuy da man man du ma saalib rasis ma du ma ma du ma wolof xam nga benn instant yéen bu ngeen saa ma tooñ ko su ma ko bëggee may xaalis ma ne ko wolof bi bu setul du ma la ko jox moom dinaa fexe ba mu xaw setal tuuti mais doomu làkkat la nga dëgg yàlla tey ñi ngi koy ñaanalee fii ñi ngi koy ñaanal Casamance fépp ndax dëkk bu nekk ak may woon ne ñu koy wàcceel kaa bi waaw dëgg yàlla li moo may woon daal euh, suñu monument la ndax euh, tey jii dubalees bi nga xamante ni moom la ko nit ñi xamee dubalees réew mi la ndax lépp rek daan xare ba dara ngir euh, Sénégal am ndam mais nag moom tey dafa am ñaari parti ñun nag Mamadou Sakho moo génn ci ñun mi Mohamed waaye Kanta nag doomu réew moom dubalee sa génn sa dégg dubalee sa génn moo xam nag moom fu mu jëm ak ñi ko fa jiitu ak ñi ko fi fekk ñëpp yàlla leen yàlla yërëm te xaar leen àjjana ndax papa ju baax la woon papa boo xamante ni chaque fois ngor kóllëre mbok xarit dëkkandoo danaan la bu ko tas sa dërëm boo koy am dugal ko fii ba bénéfice su ma naan lii bénéfice mun na ko may mënuma del may koo xamante ni du foog ni sax yaa ngi koy may xaalis te loolu yàlla xam nañ démb maa ngi toog ñu koy seede ci mbiram ndax ku jël sa alal di ko dugal ci ay yàlla di ko dugal ci ay daara te kenn yëgul te yorul moyen boobu waaw li muy sukkandiku as néew rek moom lay jël jàppale ko ci doomu aadama yi kon yaakaar naa loolu leçon la ci ñun am na maanaam dëgg yàlla maa ngi ciy bàyyi xel baax a baax a baax waaw. sa waxtaan ak moom kañ la mujjee ak lu mu la mujjee dénk. waaw ñu mujjee ma am na benn jour tamit ma fekkaat ko ci hôpital bi avant hôpital ba kër gi chaque jour dañuy toog mu téye sama bopp ñaanal ma tufli ma ndax ma tey su ma génnee am nga suma ñaan am nga suma ngërëm ma ne ko papa bàyyil wax yi ngërëm ay wax yi ñaan man d'accord naa nga ñaanal ma mais wax yi génn àdduna moom bu ko fi wax xam nga ko tànk bi xam nga kaf ak moom reetaana moom mu soulagé wu dama li nga may def neex na trop waaye Salif yàlla moom moom jël sama loxo jox ma mënuma naa jël sama téléphone foto ko def naa moom laa def sama photo profil. waaw mooy photo bi a gis wala du boobu. na bu mu sol bi am boo xamante ni sama loxo maa ngi moom. ñoo boo xamante ni moo ma jox na ma téye sama loxo ma téye sama loxo. lii nañ ko ànd ba yow ma xiyaam. ma ne ko ko dinaa ko ànd yow mooy lii. mooy photo bii waaw mooy photo bii. lii kañ la. lii mooy ci feebaram bi mu nekkoon ci biir këram. tegu ci fan yu bëri mu génn àddina. déedéet motu weer moom motu ci weer moom mais yàlla baax na. yàlla rek moo ko soxla yàlla ko fi jëlee mais fa mu jëm moom na ko gënal fu mu jógee ndax loolu mooy l'essentiel bu ñu soxla ci moom. tey sa mag di Balla ak su wala ak sa yeneen mag yi mu mel ni tamit euh, témoignage bi benn la ci yéen muy Balla muy yow ci yar respect ak mbaax Balla bi nga xam ne tey monde làmb ñëw nañ delloo ko njukkal delloo la njukkal. tey Balla moomu loolu tamit loo ma mën a wax ci moom ak taxawaay bi nan la war a demee. waaw def na li ko war li ko tàmbalee ci malal mooy taw malal mooy taw moom mu topp ci aussi tamit dañ ne bu rafetee ci kaw rek lu ci suuf mën na jekk waaw dëgg yàlla def na li mu war a def wàcc na ak paa ndax lépp loo xamante ne am na ci yaakaar ni su ko defee rek dina réussir ci paa bi rek def na ko. waaw mi malal tamit c'est la même chose ak sama yeneen doom baa yoo xamante ni mënuñoo tudd ñëpp seen waaye yaakaar naa ci feebaram moom kenn ku ci nekk jël nga sa dërëm def ci sa baaba bu doon alal nag mooy tax mu dem mu toog yàlla xam nañ gëmuma dina gëmuma dina dem mais nag yàlla rek moom moom yàlla rek a xam yàlla moom mi sañ nag te moom moom mi ko yóbbu ñu ngi ñaan yàlla fa mu ko yóbbu na ko gënal fu mu jóge ci barkeeru Xuraan monde de la lutte delloo delloo ko njukkal parce que ku ne xam na ne euh, bu ma nee sax monde làmb waaye Sénégal yëpp laay wax en commençant par le par le président de la République parce que ku ne xam na ne jeux olympique dem na ci ñetti yoon hmm? comme niñ ñu ko waxee Moscou dem na fa dem na Los Angeles ah ak yeneen dëkk gàddu ay médaille pour réew mi mu mel ni kon bi mu delloo njukkal tamit waa Sénégal bi mu génnaa dina Sénégalais yi delloo nañ ko njukkal rawatina monde làmb ker bi nga gisee mbooloo mi ko topp yóbbu ko ci këram gu mujj gunge ko lan nga yëg ci monde de la lutte waaw xam nga man dama jiitu parce que jour ba mu wàccee tey yaakaar naa ne man man maa ko jël maa ak samay rak ñaandi ko fii ci nekk yàlla bi nekk fii ci koñ bi golf aussi tamit bañ ko defaree tamit oto bi corbillard bi ma ci laa duggoon mais après ba ma doxee dem nag laa xam ne nit ñi bëri nañ torop franchement baax na baax rek am solo li mu réew mi moom mun naa ne maal bi maal maa ko dencoon médaille bu mu fees dell la te moom moo ko jëlee boppam. wallaay lazim man la daan jox naa ma teeku ay médailles yu bëri yi nga xamante ci olympique yëpp ñu ci am ci soir soiram lépp lu moom ci médaille foofu la ko daan denc maa yoroon caab bi affaire bi dafa moom ba benn instant dafa yàgg mujj bi ay ay ay ku ñëw jël benn ku ñëw jël benn te xam naa ne loolu du man maa koy def tey wala moom moo koy wala keneen na ko fi defaat mais daal àdduna bi moom ñaan ñaan la lépp loo xamante ne ñu ngi koy def ñu sax ci baax ak jaamu yàlla ngir ëllëg bi ñuy dem fekk lépp rafet mbër yi ñu gis ay mbër yëpp teew euh, Gris Bordeaux kuréelam ñoom euh, Boy Niang ñoom ñëpp teew nañ Eumeu Sène ñëpp teew mais teewaay bi gën a marqué nit ñi mooy teewaayu Bombardier nga xam ne ay quelques jours moo dox mu war a digg mu war a bëre ak Balla mu jógee Mbour sol dàllam ñëw ba fii loo loolu tamit sénégalais yu bëree baree bari di ko waxtaane ñoom ñoom ñoom seen jikko la moom laa chaque jour moo tax dama ne ñi ci kaw te suñu waajur ñoo defar làmb ba ñoom ñu fekk fi làmb te ñoom ñu fekk làmb dañoo jëlee làmb yóbbu ko fa fu gën a kawe fi gën a rafet leçon la pour antu ñun ñi nga xamante ne ñoo topp ci ñoom rafet na torop ngir boo doon jour ba paa bi wàccee minuit mi ngi fi ba une heure matin kon yaakaar naa ni tiis bi yàgg na ko bokk ëmma seen même bu ñun kenn ku ci nekk ay bombardier Tyson ku ci am tiis kenn ku ci nekk gis naa nga sol sa daal dem seeti ko dem jaale ji ko kon yaakaar naa ni moom làmb ji moom kersa moom ciy gën a yombati sax ci ay taxaw di wax ni lu ñaaw wala di ko wax loo xamante ne waruma ko wax ñu ngi jaajëfal ñëpp di yàlla defal leen jàmm defal leen tamit xolu muñ yàlla defal leen tamit euh, yoon bi nga xamante ni ñoom nañ yoonu njaal bi yàlla suñu borom defal leen ko yoonu yoonu yoonu yoonu mucc tabarkal héritage héritage maanaam ndonom lu koy taxaw lu koy sàmm lépp nag mi ngi dépendre ci suñuy mag ñi man moom man dama part li ma am rek mooy li ma sañ ak li ma yàlla kattanoon mooy lu ma xam ci ñaan ak lu ma mën ci ñaan ak fépp foo xamante ni yaakaar naa su ma fa demee nañ ko ñaana man ma def ko. yéen géejawaay mu mel ne tamit euh, donte euh, nit ñëpp a ngi génn àddina mais dañu seetlu ne ancien gloire yu bëri yu nekkoon géejawaay père Mor Fadam père Ndiaga Sarr Balla Gaye ah père Aline Sey père Daouda Fall ñoom ñëpp génn àddina yal na leen yàlla jegal xare leen aljana ba bërki dem sa papa yéen ñi fi nekk tey di ay mbër muy yow guy gi Lac de Guiers ak ñeneen ñi nga xam tudduma leen ñoom Marley mbëri géejawaay yëpp en général ban taxawaay ngeen war a am tey pour seen secteur pour géejawaay waaw xëy na coow li mun naa bëri dimanche ba loo passé te yaakaar naa ñu ne ñoom Marley ñu ngi ñoo fi nekkoon di football waaw boo xoolee mbëri géejawaay ñu ngi ñu ngi ñoo ñoom ñëpp a nekk benn di football ak mbëri parcelles yi jéem footballaat ak mbëri yaa jàmm gën yi xam nga kon yaakaar naa amul benn ñu benn réeroo xam nga c'est-à-dire que ànd ànd ànd boo xamante ni mbooloo lañu te kenn ku fa nga nekk yaay sa patron boobu mais nag njiit du ñàkk ci doomu aadama ci patron yooyu bu leen yàlla dajalee am na kenn ku muy jiital ci ñooñu nag bu ñu yàlla boole ñu ànd dañuy moytu déglu yàkkat ak noonu parce que pexe noonu dafa dafa dafa dafa dafa sew waaw te it géejawaay ku ne xam nañ cent pour cent ñoo ko fi njëkk a def te bañ ko fi defee am nañ